aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen jaara di leen bal xaq di leen baal di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu beleen jégal di ñaanal bu baax a baax alxalifa wal wasila si ahmadul muntaxa di ñaan borom bi dolli ko wér ak kattan ba yéene yoom ci liggéeyu maamam Seexul Xadim mu def ci lu kawe njort ñaan ko moom waaye noonu la ñu nuyoo bu baax ak di jaar xalifa Cheikh Abdoul Moustapha di Cheikh Abdoul Muxtar di kilifa ak pàkk ñëw toog di daawul xudus di ñaan borom bi guddal wala fanam mbokk yi xam ngeen ñoo ngi dëgmal bu tedd di bis bu màgg di xam ne ci la Cheikh Abdoul Moustapha jële woon waajur ba njaareem indi ko fii di Touba. te muy guddi gim dëkkaale ak boroomam subhaanahu wa taala xam nga ñu nekk ci wàccaay wi yàlla dogal nag euh, ñu di ko waajal ci niñ ko baaxoo defee ci ay waxtaan gën a xamle ak nit ñi dunduk euh, sëriñ bi waaye taxawaay bi nga xam ne Cheikh Abdou Moustapha taxee na ko ginnaawam dañu nekk fii nag ci bayt yi di daarul xudduus toog ak euh, sëriñ Ahmadou njaay Ngeeraan dañu war a seq tomb bu am solo muy mujjug sëriñ bi su ko defee xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk ni seetaan euh, présenté wu su ko defee ñu door dugg moom ci laaj kon sëriñ Ahmadou bismillah bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayidina wa mawlana wa wa ashabi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala bokki jullit yi bokki talibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziar di jiital ci nuyoo bi kilifa ak yoon wi Cheikh mun Muntaqa di nuyu bu baax ak siyaar jawriñam di ko nekkal fii di sëriñ Ahmadul Muxtar leen ñaanal suñu boroom ak yàlla gàttandu leen ci liggéey bi ba li leen mag ñi bàyyee ñu di ko sàmm yàlla bu ci dara suut asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Ahmadou ci nuyoo bu matale boobu kon su ko defee mbokk ni seetaan ni leen ko waxee rek xam naa dañuy dugg directement ci eh, thème bi sëñ Ahmadou muy Serigne Touba ak mu jëm. ci wàccaay yu Achirina Muharram waxtaane ak yéen lenn ci mujjug sëriñ bi mu doon ay bind yu am solo yu mat a waxtaane yu taalibe yi war jariñoo muy jataay yu am solo yoo xamante ni nii ci ak jëm loo ko doon waxtaane ak taalibe yi te sëriñ bi du ab waxtaankat ab jàngalekat la jataay bi yëpp jataay yi jàngale la loolu nag daf nuy poussé waxtu wu nekk nu war di xañtu jataay te jéem a dégg message yi nga xamante ni nii moom la jublu woon a jàllale ci biir jataay yi ndax jataayu yëpp jataayu daara la rawatina nag jataay bi nga xamante ne ni moom la mujj def ci ak mujjëm ci weeru tamxarit ci wam sësin muy jataay bu am solo te bind yu bare bare bare bari yoo am solo nekk ci biir yoo xamante ni ab bi mënu ko ñàkk xam ab jullit war na koo gëstu ba xam njàng la ma ca biir te jéem ci àttak tànk rawatina nag ñi nga xamante ni moom la ñuy tuddoo ñuy sant yàlla bu baax a baax itam ci tawféex jënd suñ boroom defal muy dëppale ji mu dëppale la amoon ci cent vingt 1927 ak lii am ci 2020 mu mel ni ci vingt 1927 tamxarit wa benn panub ajjuma la woon loolu lan boroom taw féexale ren jii tamxarit ji benn panub ajjuma la mu mel ni ki màggal gi kon talaata ci guddi la sëriñ bi fanaan si woon Tuuba bët seet bi àllarba talaata jooju yi lan suñu boroom wërsëgale te yàlla deful dara ci ak neen kon war na noo gën a raxas sunuy xol te doon lee waajal suñuy jëmm te yokk sunu pas ak sunu yitte ki gën jariñoo waxtu yooyu yi nga xamante ne ni moom lañ dëgmal hmm. mu mel ni sëriñ bi ki ak mu jëm muy wam sa sin yi benn fanu tamxarit ajjuma fukki fan ak juróom yu mujj yooyu daf cee bari ay dénkaane yoo xamante ne nii dénkaane na ko mu jëm ci njaboot ñettee woon ak ñi teewul nag ñëpp ci am wàll mm-hmm. moo tax ñu di ko waxtaan mm-hmm. du caagi ni rek ñi koy dégg léegi jàpp ni ñawoon lay waxal waxi sëñ bi moom jamono ju nekk waalaabal na ci képp ku koy tuddoo boo ci yemee rek jàmbat jàppal ni bi nga ci yemee gis ko la sa ndigal tàmbalee mm-hmm. ci jëfandikoo loolu mu doon ay tomb ak joxoñ yu leer xëy na doon wane itam ni mi ngi ci wàccaay te ñam doon waxal jéggiwuñ woon fam doon waxe lu dul ni gannaaw bu xew-xew bi xewee waaye fukki fan ak juróom yooyu yi yàlla dafa dogal hmm. sëñ Ahmadou Tasrif Sougou doomi sëñ Jéeri Waadana hmm. fukki fan ak juróom yu mujj yooyu fu fi sëñ bi nekk ñoo fi bokk na bari itam yu doon xew yoo xam ne moom la ko sëñ bi doon yónni hmm. loolu itam dafay wéral rek li ñuy bëgg wax leneen bi ci des hmm. ay mbind la ci jataayu mag ñu fekkee yaxal jataay ba mu mel ni sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ci xóot ba wam sa sëñ mu mel na ci mujj goog yi la sëriñ bi yónnee sëñ Ahmad Tasrif moom yi moom la wax ni ko wowal ma ma sàmba moom nag sëñ na leen a sàllalu nooy kilifaam waaye sëñ ma sàmba la doon woolu ba mu ñëwee mu wax ko ni ko dama bëgg nga toog fii ma daan toog lu waaye indi te nga doy ko na la ko jox ñu leen itam nag ñu woor Moussa Jama rakki sëñ Magueye Jama hmm. doomi sëñ Adama Gueye ñëwee mu ñu ko wutal gaal hmm. def ko ca pénc ma ku ma sàmba doy te gaal gi doy la da ngay nga def ko ca gaal wax leen ni tam ne fa ma baqiya lil arsaqi fa li xayri hmm. li des ci wërsëg yi ñeel na ñeneen kon boobu mel na ni am na lu muy junj waaye mag ñi seenu cofeel ci moom seenu bëgg tax na am na yoo xamante ni duñ ko xalaat mukk ci jëmmam nee na boobu itam la ko yónni ni ko wool ma afiya muy sëñ afiya Mbàkke mu wax ko ni ko seen jàppango bu julli jotee julli leen wax ko itam ni ko wool ma ma jëm silla mu woo ko mu ñëw mu ne ko seenu kaamil ngoog daari kaamil da daan wax ni dangeen ngeen a bëgg tool ca mboodaay bu ngeen may bayal seenub tool a ngoog muy daari kaamil jëm leen sase yi ñuy na ca mu mel ni yooyu yëpp ay ay junj la yoo xamante ne nii doon na ko junj ci mag ñi ci dégage ay responsabilité yu bari yoo xamante ni ñoom la ko bëgg a bàyyee sëñ Ahmad Tasrif nee wax na ko fii itam ni ko Ahmadu mu ni ko Mbàkke mu ni ko xanaa jaaxle woo mu ni ko ah, ci lan ndax ñoom bu sëñ bi wax ak ñoom duñ nangoo xam ndax li sëñ bi xam daa gën a wér ñoom lañ xam donte xam nañ ca dara yi dañ koy wan ak ñàkk xam sëñ bi ni ko moom lépp te sañootoo cee jëfandikoo dara mboolem li ci sama biir kër gi moo kaasub sàngaraayam ci man waaye taxul booba rek seen xel ndaw màcc jëm ci dara ba ca bañ demee ba ca fukki fan ak juróom ya muy gaawoo sëñ bi julli jee takkusaan ba ñëw la toog jataay waxtaan mu mel ni jataay boobu la mujj toog ci mbooloo kàddu yooyu itam la mujj yëkkati mu jëm ci mbooloo jataay ba sëñ Mat Lamin Jóob yaxal na ko ci kayit moom la tuddee xutba wam sa seen bari na itam mag ñu ko fekke waaye léppam am njàngale la léppam taalibe bu ne war na ko yittewoo ndax nee na am na mag mu xam ne dafa toog sëñ bi wax ba pare mu ni ko ah, waxtaan wi neex na sëñ bi ni ko waxtaanu ma damay jàngale loolu mooy xamal ni waxtu ci ne day jàngale day toog nag jataay boo xam ne daa wax man mag ñi am ci kenn ku daanu subbi summi mbubbam jox ko sëñ bi taxañ ko ba mu doon mel ne dànk sëñ bi sànni ko ko ci kanam ni ko soxlawuma ko li ma bëgg ci yéen mooy ngeen jaamu ji yàlla te bàyyi jëw yooyu yëpp ay bind la yoo xamante ne ni dañ ko war a jariñoo te yooyu ci jataay yooyu la doon xewee bi mu toogee ci jataay bi sëñ Mat Lamin la wax mu jàng alxuraan tàmbale ci njëlbeenu bàqara jàng ci ay aaya sëñ bi wax ko ni ko taxawal li ci sëñ bi jublu woon mooy njëlbeelu bàqara day wax nu ab jullit di mel ma ni loolu ab seetu la boo xamante ni ni jullit bu ne war na caa seet boppam ci njëlbeelu ay yooyu yi ndax melokaan yooyu yi muy wax mi ngi ci yow wala nekkul ci yow ndax nit moo gën a xam boppam bari na lu nit ñi foog ci nit te fekk nekkul ci yow waaye loola nag ab seetu la la doon boo xam ne danga caa war a seet sa bopp ngir mën a delloo si sa bopp ci fi nga war a ne mu dellu waxaat ko itam mu tàmbaliwaat jàng mu wax ko ni ko ab yéefar a ngoog mooy koo xamante ni nii gëmut yàlla wax ko itam melokaan yi nga xamante ni nii moo ci nekk ci moom loolu itam kenn ku ne war caa seet sa bopp ñoo ñi sëñ bi tuddee kaafiruuna nga nattale sa bopp ak ñoom jikko ya ne ci ñoom ba tax ñu tudde leen loolee ñu leen tudde yow yi ci nekk ci yow nga xam ni loolu mooy sa wopp mooy sa jàngoro nga jéem koo faj ginnaaw loola la ko jàngaloowaat mu jàng mu wax ko ni ko am naa fekk noonu lay mel yooyu yëpp ci juróom-ñaari aay yu jëkk yooyu yi ci sooratu bàqara moo ko tënk ngir bañ a dugg ci ay détails muy faram fàcce heure bi di dem ab joxoñ la ku ca dellu da nga ca gis sa bopp bu baax a baax foofa itam la leen waxee ne leen bàyyi leen farfarloo farfarloo amut ci diine ndax lan mooy wane na ca position bi jullit ñi am ci gëm yonent bi ak gëm ña ko jiitu woon ci ay yonent ndax moo mujj ñëw kon am na ñu ko jiitu woon mooy daf ko wan rek da yàlla suñu borom da doon wan yonent bi ko nekku fi yow dong loolu da ko war a wax gaa yi mu àndal bañ xam ni moom dong nekku fi woon am na ñeneen ñu ko fi jiitu bi dañ ci dégg ni mboolem ñi nga xamante ne nii sëriñ bi dañoo jiitu woon sëriñ bi doon woote ci yàlla te wootin wa tege ci yoon sëriñ bi nangul na leen loolu cër bañ leen di jox ak fonk gañ leen di fonk wàññiwut dara ci cër bi ñu war a jox sëriñ bi ak fonkeel gi ñu ko war a fonk mu mel ni nag ci jataay boobu yi jàllee mm-hmm. sëriñ bi fatu ndax da ne di wax ba julli jigee jot mu dem julli jigee ñëw takkusaan ba julli timis jot mu dem julli ji timis ñëw àggale jataay ba moo tax sëñ mat lamin bind ko xutba wam sësin loolu damay wax taali bu ne war na ko am ba mu duggaatee ci biir nag mel na ni mooy mujj gi jataayam waaw sëriñ bi mu bi mu duggaatee jotuñu génnaat. génnaatul ba moom boobu ak digg bi yegsee waaw loolu moom mooy amut benn jeexital boo xamante ne nii. feeñ na ci jëmmam. Mm-hmm. bu mag ñi teg toloo ni lii ak wéradi ko gaar wala dara. Mm-hmm. ndax sëriñ bi moom kenn ku ne xam na ni. na mu déparé woon bijaaw bi yokku ci dara wàññiwu ci dara loolu ni nag ni suñ borom binde doomu aadama ci ak màggat ak tële ni gënee jëm ak mag cawarte gam yoroon ak activité yi ni mu ko doon demee loolu xam nañ ni loolu mi ngi wàññi ndax même tubaab yi biñ koy jëlee jolof di ko indi njaareem loolu lañ wax dañ ni yaram waa ngi commencé ras te mel na ni gis bi taxatu koo neex te mel na ni sawaratut loolu li muy tegtale rek mooy mag gaa ngi dugg lool rek la doon tegtale mm-hmm. waaye wax nañ ni sëñ mët jigal ñëw na fa bis di ko jàmbat ci biir quinze jours yooyu rek mm-hmm. tàngoor wu ne ci yaramam mm-hmm. waaye nee sëñ bi dañu ko dugalal fii sa loxo sëñ mët jigal nee mu dugal loxoom ci ci biir mbubbum sëñ bi waaye nee na dënn bi mu ngi mel ni ab sébb lañ fi taal tàng jër biir biir yaram mais sëriñ bi ni ko li nekk fii moo sóor foofu moom ñetti weer la ko sëñ bi rawee waaye taxu doon itam ñu bàyyi xel rek ci ni kii li koy gaar noonu la. jotaayu tàggatoo bu mujj boobu ak bi mu duggee xëy ci ñoom ci ne sëriñ bi daf leen euh, euh, ndax boobu mu duggee sëñ Matar Sylla moom moo daan def bu timis jotee moo koy taalal làmp bi ndax sëriñ bi. Mm-hmm. kenn ku ci nekk ak fonction yi nga xamante ni moom la daan joxal sëñ Matar Sylla nag rakk sëñ ma di Madiba Sylla a bokk ci mag ñi nga xamante ni nii ca magi kër ga lañ bokk ñoo daan taalal sëñ bi làmp bi ci jataay boobu bi sëñ bi fatoo dem na bëgg a taalal sëñ bi bu yëngoo sëñ bi ana kooku mu ni ko mën a maxtaar mu ni ko demal bañ soxla ko mu dem nga xam ni keroog taalut mm-hmm. dimanche ñëw na waaye déggu dara lu yëngu ka yoona ne ci kees yi mu delluwaat ñoom it li jàpp rek mooy dañu sëñ bi ci xalawaatam yooyu mu ne ndax daana tëju lépp loolu dem ba ca ngoon ci ngoonu dimaas gi mu ñëwaat jàpp ni sëñ bi dana yittewoo làmp beeg yooyu waaye déggu dara lu yëngu mu delluwaat ca altine ji nag bu mu xëy siwaatee ñëw na ci yoor yoor bi waaye dafa fekk altine ji mu xaw a taw taw boo xam ne suuf si xaw naa maase sëñ nu Amar jóge ca daara ja eh, di rooti ca teen ba bi sëñ nu jàllee laata muy wàññikuwaat ko sëñ bi jóge na ci néeg bi mu newoon dox ak tànkam dugg ci néeg bi nga xamante ne ni fa la dogalu suñu borom bi dikkee ci moom eh, looloo tax ñu jàpp ni lu mën a xew ci moom ginnaaw yor yorub altine lay doon te loolu itam dañuy xam ni donn gi mu donn yonent bi sallallahu alayhi moo tax toujours ay mbiram dafay lëkkaloo ak yonent bi sallallahu alayhi ndax yonent bi dañ yor yorop altine la wàcc liggéey ñu denc ko talaata ci guddi ba seddi àllarba ñu gis ni itam néeg boobu yi nga xamante ne ni moom la moom la wàcce néeg ba Cheikh Ibrahima Fall la ko sëñ bi liggéey la woon Cheikh Ibrahima moo ko liggéey néeg ba néeg ba itam mag ñi waxoon nañ ni ay lal néew fa woon genn basangu romb jaan moo fa nekkoon goo xam ne sëñ bi da ko daan wéer ci jën wi ci digg bi saa yu soxla bu fa duggee lal ko toog ci def li muy def bu génn jotee mu génnaat loolu itam wax nañ ni moo leen wax ni leen ni suñ boroom moo ma wax ni ma boo demaatee ba sonn na nga dem ci liggéey bu Ibra Fall liggéey nga noppaloo fa néeg bu Cheikh Ibra moo ko fa liggéeyloo laata muy tëju ci yi yu mujj yooyu itam la woo ab Ablaay Xaar doomi Lat Joora ni ko demal ca Ibrahima Fall ni ko wet gi féeteek uh, jumaa ji naa ma fi yettal ab bunt waaye bunt bi nañ ko takk bu fa kenn jaar eh, ndekete bunt boobee ca lay jaar buy dem Touba dañ koy génne kër ga bunt boobu lañ ko jaar la keroog lañ ko jëkk ubbi sëñ Matar nag bi mu ñëwee fekk situation bi demee noonu ci altine ji mu kala yoon na kala yoon na dara kiiwut xelam xaw naa ñaaw ndax nit itam bu ngeen yàggee xëy na dana am ay seetlu yooyu seetlu ci moom yoo xamante ni sa xel dana koy xalaat waaye saw làmmiñ du ko tudd koy falan moo tax néeg bi sëñ bi dugg dañ kumpa na ko moom sax ci ab nettaleem mi ngi wax ni maa ngi tiit suñ borom mbugal ma mm-hmm. ci yëddu gi ma doon yëddu sëñ bi mooy yërndu gi ko yërndu gis ko mu mu tëdd ci kaw romb jaan ga lal ci ak sijaada tëdd ci tëraayin wu jekk mm-hmm. ndekete booba suñ borom ñëw na akub dogalam loolu lépp nag fekk fa Cheikh Mouhamadul Moustapha mm-hmm. da koo fekkoon génn ndax euh, ca njëlbeenu tamxarit ga la ko sëñ bi waxoon ni ko boo demee ba tamxarit wi dëgër foo nee na nga ñëw seet si ma dama laa soxla loolu itam xëy na ab joxoñ la sëñ Modou itam ci fan yooyu nee na toog na ci kees ci kees yooyu noonu sëñ ma paate mbay doomi Modou Matar Mbaya mooy magi Baye Gallo seen sëñ Moussa gàdd fa nuyu ko waxtaan ak moom laaj ko kañ nga fi ñëw sëñ Maodo ni ko aw naa fi am naa fi ay fan ni ko dama siiwut de waaye maa ngi fi ni ko siiw nag ab coono la waaye ñàkk siiw moom xéewal la waaye keroog it daf ko wax ni ko Modou Matar ma paate man de dama dama xaw a amuk jaaxle mu ni ko jaaxal mu ni ko daal li ma jaaxal mooy suñ borom dama xamal ne ma waratuma am kilifa te seen waajaa ngi fi ne ko fi mu toll nii daal dama xaw a mel ni chef de gar bu taxaw ci ak gar am gar am saxaar guy costé ak guy bëgg a déqi koo xamante ni dafa ñëw bay bëgg a costé ak saxaar guy bëgg a départ mu ni ci lijjanti bi yu mel noonu daal ci la ci la toll fi doon nii waaye booba itam taxut moom it mu xam luy la muy wax booba la fa jógee nag dem Touba Kayel ci dëkk boo xamante ni mi ngi ko sancoon ci 1922 ci jamonoy sëriñ bi dimanche fa la ko fekk muy fukki fan ak juróom-ñaar ci tamxarit wi ni dimanche ji di tolloog loolu rek ni mu tolloo ci bis yi ba mu xëyee nag mm-hmm. fi mu toog ci yéen bi mag ñi di waxtaan ak moom mm-hmm. eh, la ni tekk waxatul dara moom mm-hmm. yàgg mu jéggi piliyaan bi mu toog dem ca tokkoorut ñaam ba ci ginnaaw kër ga sëñ Mor jàddam mooy maam yi sëñ Mbàkke Soxna Lo moo jur waajuram wu jigéen moo ko fekk foofu mu ni ko ba mu ni ko Mbàkke mu ni ko dama jaaxle mu ni ko loola jaaxle mu ni ko foofu ma toogoon ci néeg bi di wax ak yéen mm-hmm. na lu wax ak man te du te lépp lu ma mos a wax dëgg la mm-hmm. nee na bu ma amee ñeent fukki at du ma am am kilifa mm-hmm. te fii ma taxaw di wax ak yow maa ngi sama ñeent fukki at tegal ay bés ñu loolu de jaaxal na ma sëñ Mor ni ko ah loolu de doy na waar mu ni ko waa ah, baax na noonu dem daal di ñu dellusiwaat ca mbooloo ma wax mbooloo mi ni leen léegi na ngeen dellu ci yitte yi te ngeen sax ci jëfe ndigal ak bàyyi tere te lépp lu ñu leen di tere ngeen fexe ba ku leen ci kenn seen damay dem wetti Touba waaye danaa fi siwaat boobu la daal di ñëw Touba wax nañ ni boobu mi ngi dëkkee ci wetu kër sëñ Matar Bintaloo gi ci sura foofu la kër gi nekk sura man raa kër sëñ Moussa ku newoon foofu wax nañ ni sëñ Basirou moo fa defaroon néeg bu rafet boo xamante saa yu duggee ci kër gi faw nga visité ko ñenn ñu wax ni kër ga moo tuddoon sura sura man raa mooy ku ko gis bëgg loolu loolu lañ jubloon rek ndax taaru kër ga dugg na ci biir kër ga génn dem xusnu ma abin mooy tundoo di moom it bàyyi sëñ Njaay Anta nee na ma keroog bi muy ñëw maa ngi koy seen jàkkaarloog moom mu sol garam bu baxa ak kaal ak sàmba sembe ak dalli marakis yu puur noonu la ma ko waxee sax ma laaj ko pour mun ma mooy yu mboq waaye moom it daa dugg ci biir kër gi rek dugg néegam tuuti daal di génnaat jaar na Nayde jaar Kellal laaj Amadou ma Xuraje ñu ni ko daa dem tool Amadou ma Xuraje moo jur waa jur wu jigéenu Serigne faat ma ñu ni ko ndax ñu wooye ko mu ni du ko jar bind ab leetar bàyyi fa. loolu lépp ci dimanche ji la jëm côté Ñaaxeen. wax na itam ni laata muy àgg ñaaxeen la waxoon ak moom ca Touba waxaat na ak moom ci biir oto bi ni ko wàññikul mu tinjaareem waaye teewut mu jaar daarul Mawti fara dajeeg sëñ Ablaye Diop lew na ànd ak moom dem daaru ñaaxeen ci këram gu nekk foofu goo xam ne maam Cheikh moo ko joxoon dëkk ba addiya muy ñaaxeen ci 1922 fala ne sëñ Modou waxoon ko ni ko tool àllarba bi dañ koo woote woon xanaa da koy xaar kon sëñ Moodu xamal ko ni ko duma ko mën a xaar ndax damaa ne ci yitte ginnaaw bi mu laaj ko sax ni ko loo jublu ci xaar gi mu ni ko nit ñi buñ yëgee ni yaa ngi fii tool bi day bari nit te day gaaw a jeex sëñ bi ni ko kon nañ ko woote ci altine ji ndax damaa ne ci yitte ñu takki fas wër tund wa woote ñu ñëw ca tool àllarba ba waaye daf leen waxoon ni leen itam ku ñëw ñu dawali ca tool ba bu kenn jaar si ci kër gi bi sëñ Modou dikkee xamal nga ko tool ba pare na dañ ko nañ seet foofa ker gu yaatu ñu daje fa maa ngi fay ñëw ba mu dikkee fa la leen fekk soññi leen sant leen moom itam wax nañu ci yitteem ju kawe amut benn liggéey boo xam ne mos na koo liggéeylu te du ni laata mbooloo may yewiku dem na fa ndax loolu lépp dafa bokk ci xeememloo ak sawarloo kii liggéey mm-hmm. yooyu itam dafa bokkoon ci aw doxalinam mm-hmm. ba mu fa jógee mu dellusiwaat ci kër ga. loolu ci altine ji la. loolu ba muy ñëw ca kër ga tam daa wax sëñ ma ni ko mboolem mboolem ku ñëw kees gi ma nekk bu mu ci bu ci dugg. mu ñëw nañ des ci penc ma. te lu waaye man ci jàng alxuraan ak jàng xasida ma ca nekk. Eh, nee na bi timis ci xawe maase. ma ñëw bëgg koo taalal làmp bi mun ma du ko jar. ma ko léegi kon ma delloo bunt bi nee ba tey mënu ma jaru ko. ñoo ma xam ne kilifa gu ne ci biirum néeg nanguwul ñu tàllam ba nanguwut ñu delloo bunt ba xaw na koo jaaxal ma boof ci bunt bi ci waneen bañ sàkket wi féete ne rek du ci digg bunt waaye daal mooy bunt bi boof ci noonu rek ñaaxeen fa la fanaaneet ci altine ji eh, nee na mu wekki der bi lal ci suuf mm-hmm. commencé julli di sëlmal di julli di sëlmal mais ba julli lu ko soob mais mm-hmm. ma dégg muy jàng alxuraan muy mm-hmm. jàng ca kaw ba jàngal loolu lu ko soob fajar di jot génn na di doxantu noonu ci tokkoor bi bàgg dama ko ñëw ma dem soññ jigéen ñi ñu defar ndékki li ngir bañ mu naaj bi ma ko waxee mun ma nañ ko jox Ablaye Diop lewoon ma jox ko sëñ Ablaye ñu séddale ko nee fi ma ko jox sëñ Ablaye ma koy wax ni ko sëñ bi tee wax ak moom mu des fi dalloo ndax coono yi bari na te waa réew mi xamaguñ ni mi ngi fii mais mu ni gees ni ni ab lay jóob lu mu wax mu ne ko ah, moom de da doon wax naan nga dallu ndax coono yu bare ak yooyu mu ne ko nañ defar bagage yi nee na keroog génn na foofu xaalis jox sañ sëñ Mat Silla ni ko na ma ko joxal ay Aydara waaye na ko ci ba ma dem mu door ko ko jox loolu itam danañ ci jànge sutura simi mi dund nga xamante ni kilifa yëpp mën nañ koo bàyyi xel mm-hmm. ci booy dimbali nit nga dimbali ko te doo ko xañ personnalité am loolu itam am na ci solo trop ci ci xeetu jëflante yi nga xamante ni moom la ñuy jëflante mm-hmm. bañ jëlee bagage yi nag foofu lañ jaare jaar gaat dem gaawaan talaata yi ba mu xëyee rek mm-hmm. la jaar noonu wuti gaawaan mm-hmm. booba maam Cheikh Anta mi ngi foofu moom foofu moo doon nekk waaye moo tax ñu naan maam Cheikh Anta borom gaawaan ñu bari nag dañuy defee ni gaawaan gi ci Mbàkke la waaye du gaawaan googu gaawaan gële la googee ca Kajoor fekk itam gouverneur général commandant cercle bu Jurbel et moo paal doon nomination bu bees ñëwoon seet si maam Cheikh Anta ndax wala rée ma sëñ moo di ñëw la tasanteeg maam Cheikh Anta ci étage bi di gunge commandant bi loolu itam dañ ciy jànge bu baax a baax ci ni jekk moom yàgg na ci yoon wi ba tax na lii feeñ ci yoon wi wërtu yóbbu sunu sunu dignité mm-hmm. wutum wërsëg mi mm-hmm. ndax ci jamono booba maam Cheikh Anta nga xam ne dara amut àll bu xonq cooy mu tabax foofu étage mm-hmm. amit personnalité bu toll ni commandant nga xamante ni ni booba commandant moo gën a foor président de la république jamono yii di ko seet si personnalité boobu nga xam moom la yoon wi doon incarné ak am njariñ gi ñu amaloon njariñ nit ñi ba fuñ nekk ñu di leen fu fekk loolu tam war nañ koo sàmm te sa ko gone yi mm-hmm. fekk mu di ko gunge euh, sëñ bi nuyook moom mm-hmm. bi mu wëlbatikoo nag la koy laaj ni ko ndax nuyoo nga ak commandant bi parce que kooku nomination bu bees la amoon sëñ Modou ni ko déedéet mu ni ko ba ma xamoon ni nuyoowu leen mm-hmm. danaa leen nuyoo leen daal di wax sëñ Modou nag ni ko xanaa ngan ngi ma doon dikk te mu xaw a jafe xanaa tey jii la ko yàlla dogaloon bëgg mu yendu sëñ Moussa xamal ko ko duma mën a yendu damaa ne ci ba Cheikh Anta ni ko xanaa da yaakaar ne dama amutub añ. Mm. Eh, sëñ Modou Reku ni ko yow kay ku la gis xam ne am nga añ keroog jox na fa ak baa ak saakub cere. Mm. ni ko kon teraa nga jàngoo ginnaaw doo yendu saakub cere ba sëñ Mat Lamine Touré moo yoroon soxna su gaawaan. Mm. moom Cheikhul Khadim moom la ko sëñ saa jox. daat fay jógee ñëw njaareem. lépp ci talaata ji la bi muy agsi njaareem booba tisbaar weesu na. te takkusaan jotagut bi mu ñëwee itam ci kër boppam goog yi mm-hmm. nga xam ne mooy kër sëñ Mbàkke Mouhamed gi ci Jurbel mm-hmm. loolu kër sëñ Moussa woon mm-hmm. foofu sëñ bi wàcc eh, nekk fa mag ñi yëg ni ñëw na ñoom itam ñu ñëw di ko siyaare si ak di ko nemmi sëñ Mat Lamin Jóob Dagan nag foofu la ko waxee ni ko déy ko ni ko sëñ bi moom mat naa nemmi ko ndax li mu def gëj na koo def kon booba xëy na am na lu ñaaw njort ci seen xel ci ne am na lu xew sëñ Matar la itam ñëwaat fa waxaat ko même wax boobu waaye sëñ Modou akuk dalam akuk niteem loolu daf cay feeñ bu baax a baax loolu itam jamono war na koo jàngat bu baax a baax ndax léegi daanaka bu kilifa dogee rek balaa mat ñaari minute àdduna bépp yëg ko nga xamante ni toppatoo bañ ko waroon a toppatoo mm-hmm. sell gam waroon a sell ak bokk yi nga xamante ni ñoo ko waroon a taxaw léegi loolu yooyu secret dara amatu ci loolu itam jafe-jafe la waaye nga xool moo Modou nite gi ak itam dëgër gi ak gëm yàlla gi ak ñeme responsabilité bi ndax ku toll ni sëñ Tuubaa ak ni mu feese jamono fi mu toll ci ab yëngu ñu wax la lu mel noonu ci moom déy la ko nga mag ci ak njabootam war koo lijjanti nga ànd ak sa sago ba mbooloo mi nga toogal kenn xamu ko ci sa xaru kanam mm-hmm. ndax booba lu ne mënoon naa xew ba nga ko waxee lu ne mënoon naa xew waaye dara xewut ak nite rek moo moo xew bañ jullee timis ba pare nag la woo mag ñi nga xamante ne ni ñoom la àndaloon muy sëñ Mat Lamine Diop Dagana sëñ Matar Sylla moom yi sëñ Cheikh Khary Dieng ak sëñ Ablaye Diop Léona ñii la àndal tab bi ci biir kër ga ñu woolu sëñ Cheikh Fatak ko moom lañ laaj ndax booba bokk na ci bëkk néeg yi gën a jege te kees gi mu nekk itam gi sëñ bi ne moom moo yor caabi mm-hmm. moo tax sëñ Modou laaj ci gan kees lañ ko mujj a dégg mm-hmm. ñu ne keesuk sëñ Cheikh Fat moo mm-hmm. fa sëñ Cheikh Fat mu ñëw ubbil leen mu laaj ko ci ban néeg lañ jàpp ni wala mujj a yëngu mu joxañ néeg boobu yi nga xam ne fa fa lañ gisoon tànk yi dugg fa taw bi mu taw itam moo laal bunt bi ba bunt bi xaw a gonflé ba mel ni daf koo tëj waaye fekk tëju ko taw beek moo ko gérer rek ba bunt bi xaw a xaw a xaw a dëgër moo tax bunt bi xaw a mel na lu forcé waaye sëñ bi tëraay bi mu tëdd tànk mi nga xaw a jëm si ci bunt bi loolu bi mu dikkee sëñ Moussa ab yaram ak i tegginam ak xam sëñ bi ak taalibeem jiituwut daa wax sëñ Mat Lamin Jóob ni ko bismillah waaw la tax loola itam mooy sëñ mat la bit sëñ waa daf koo mayoon ni ko fu ma ne mën nga ma faa fekk looloo tax fu ma ne rek mën nga faa fekk ndax bokkoon na ci ñi gën a jege sëñ bi aminu sirri sax lañ koy wax nga xam ne bu secrétaire particulier doon am moom jamono yooyu moom la ci sëñ bi ndax bari na ay secret yu ko sëñ bi doon def loo moo tax mu ne ko bismillah xameen daan na ko def sëñ bi yëngutu def na yëpp waaye dara xewut mu door a puus bunt bi sëñ Cheikh Khary Dieng yoroon fatafoor bi di leen niital bi ñu gisee jëmmi sëriñ bi sànni fatafoor ba sëñ Moussa tudd yàlla ca kaw jël loxoom teg ci jëmmi sëñ bi waaye ne bokk na ci kàddu yi mu wax mooy ak a mën a muñ mhm. ak di as mhm. te yooyu tali bi ci loolu lañ waroon a daw jëkkante mooy nangoo muñ mhm. ba pare doon asgor loolu dafa ëmb bépp makaarimul axlaq mu ngi ci biir jikko yooyu waaye jikko yooyu moom boo xasee ñàkk moom daanaka mbaama la tane euh, loolu itam mat naa bàyyi xel ci yooyu moo tax sëñ bay jaxat di wax ni sayam wu rëy wañ daan daw musloo ko daw moom la la yan keroog la am responsabilité bu mag a mag ci ay ndénkaan yu ko sëñ bi doon dénk ndax la sëñ bi doon bëgg te mu jafe mu yasir rujuu yi li tuubaaya waccal ilaahi maskani tuubaa abat yooyu moom jafe woon na mag ñi xamuñu woon dëgg dëgg nag bayit yooyu kañ lay ko ndax fanweeri at ak ñett ngi am yoo xamante ni sëñ bi tegu tànkam ci suufu Tuuba ah, te bayit yooyee warees na koo firi ba teg ci bët loola nag moo doon liggéeyu sëñ Moussa ci jël ay responsabilité am nag ci li ko sëñ bi dénkoon ci barab boobu yi mooy yasir rujoo yi li Tuuba ya ak waccal ilaahi maskani Tuuba abat moo tax may wax ni bu ñu jàngatee ci dunduk sëñ Tuubaa dana nu yokk pas-pas dana nu yokk ngëm dana nu yokk ay bind suñ diggante ak moom may ko orma ndax saayiram moo nu firil baatinam ndax yu mu doon wax yu yàgg yàgg yoo xamante ni nii xel mënu koo xalaat tey luñ doon doon ay gone nun teg nañ ci suñ bët loolee nag moo moo nu may gëm gu wér gu dëgg ca lañu ñu gisagut te ak guñu ca. sëñ allah dégg ngeen waxtaan wi. muy mujjug sëriñ bi foofee ca njaareem euh, ci Sahir ba ci euh, di ko si Cheikh Moustapha demee foofee ca njaareem ba nga xam ne responsabilité ci la ci moom nag xam naa kon foofu la ñuy taxawandi incha allah di la sant bu baax a baax di la gërëm bu baax a baax ci jàpp euh, jàppandal gi. su ko defee mbokk yi ni seetaan ngeen wéy di ñu topp su ko defee diirub bi ngeen xam ne Cheikh Moustapha responsabilité ci la ci moom taxawaay bi mu taxaw ci ginnaaw sëriñ bi lépp incha allah dañ leen ko digtal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.